bi ma xëyee boobu ba léegi sama xol bi mi ngi sedd guy ci yow dama bëgg tey foo bëgg ci àdduna bi ma yóbbu la fa wuy ma séeri koko nag kuy wax ak yow danga koy faale tuuti dama bëggoon yóbbu la faal yaram sob ni fi mu génn ak yow faal yaram sob gis nga fi mu génn ak yow mooy xale boobu nga xam ne Abdoulaye Fall lañ koy wax nekk Colobane nga xam lu mu jaayul baaxul sañseet na la mais dama laa bëgg yóbbuwaat barke bi yow man am la ko bar xam lu ma bëgg man ak yow Sidy Mbi ci riche di ma ko xëccal gauche di ma ko xëccal droite kenn ku nekk naat xam nga gars yi lu ñuy woy ñi naan bébé ñi naan popon ñi naan bëlbësi yow sama dànq laa lay wooye da nga wax ak man nag tamit boo ba léegi maa ngi wax ak yow doo ma tontu da ngaa bëgg Wally sekk woy la kooku dina la way sabaay Youssou Ndour dina la way non kenn du kenn du la yóbbu xalaas nekk caaba ay ndooy baan doo dem ah da ngaa bëgg ma saas bébé lillahi wa rasuli ak mbokk waxal ak man oh, lan mooy problème bi lan foo bëgg ñu dem fa. dégg da wax nag yow tamit yow booba léegi maa ngi wax li gën a métti ci àdduna mooy bëgg nit ci ba pare ci faalewu la yow du wax nañ ba mu dee nga ni ma danga maa bëgg loo bëgg ak man bëgg dafa métti de na ko sunu ndayee daan dundee sunu bàyyi ñu ngi koy dund dund ko métti man xamul ma bëgg yëkk ma rek. mel ni ko yor sa di ma xës di ma xuse di ma gàcc est-ce que du ma saase yére bi xaar mu ma ñëw rek saase yére bi bébé sama dànk sama dànk dànk waaw da ngay xef nag yow tamit du xool te te xef man nga ñëw rek ah je t'aime I love you ay na xanaa fi ma génn ak neex na la bu bëgg nga futur bi moom suñ bi ma li nga xam ne boo feebaree da la sa ginnaaw loolu saa dama bëgg nga may def noonu bébé wuy ma xam naa nag amal ci man yërmande bëgg naa la góos bëgg la duraat ba ca yombal xiyaam la kabar man nee naa la yaa ne ci man ne ci man yaa ko xaaral ma solo a veste bi nga mën a wax xaaral tuuti rek kenn laa war a àndal soo xam naa léegi mu yëg si lii mooy li nga xam ni mooy sa cadeau cadeau ok bul waxagun ba léegi wuy ma léegi noo ma gisee faal yaram sob laa lay yóbbu bul tiit bul jaaxle boo paree ñu dem ma yóbbu la turki ca bàyyi Cerno borom seen kër goo xanaa loolu neex la bébé ah gaawal wax ak man waaye gaawal balaa caata ñëw waa Diop booy maa ngi nii foo ne maa ngi nii di wax ak sama gel bi dem heure bi jot na kaa ñu dem gaaw aca ñëwal rek di wax ak kii nga xam mënu ma nunguuma faale waa Diop waaw maa ngi nii kii mooy sa eh. oh booy bul gaañ sama xale bi. dafa ndànk booy xam. sa gel bi wow la wax loolu jigéen la. Eh. yow nga dof. booy. yow mën a kiraa ngay. nga réer. kii oh kii kanaal. non. lamba. oh lii dafa waroon nooy sa naawoo. daanu nga nag. booy xam nga la dal yow dugg ci ay mannequinat. booy man benn waay boo ma jaaxal bi. yaa nga xam ne fu ne laa bëggoon a dem ak moom ànd ak moom. laa fajal dara. booy booy defar rek. man. booy wuy bu ñu ñe man kii laa bëgg. Ah. ay na fii góos. yàlla bu ñu dégg parce que man xew wuy ma ndekete mu ne kenaa la ndekete ndekete mu ne kanaa yor sama sëy ba leen te yàqu na waaye est-ce que dal na la sama àq dal nit ku baax li ma doon def yëpp yow yaa tax yàgg naa tëdd nga tere ma nelaw lim a bëgg mooy toog ak yow ala ci Cheikh Valentin bi ah asalaamaaleykum adduna bi yëpp maa ngi leen di siyaar oustaz Ahmed Diop mbëkk nag moo leen di borom yàlla yi kese barki bi yomal xiyaamu lakk bal yow nee naa la sa baay la sa yaay jàmbaar la Fall yaaram soba yow borom Dubaay ngi nii borom Siina ngi borom Turki ba kii yow ma la xiyam la kabar yow wama bay nukum ci yow nuxuru jukum gubbo gubbo gubbo faada gubbo la man gubbo lëfër lëfër yow kuy jaay tiise yaay baayam di ndeyam kuy jaay tiise day xaar kuy jaay yére day xaar xoolal lu baax lii barke yow ma la xiyam yow ku la naa ko ñaf ay mbëkk seebalante bi lëfër lëfër seebalante bi dama bëgg ñu baaxal ko ba mu baax si ci mbii ci russe boo bëggee ku la ko jàppal fii laa doon doxaane ndaw si